muy seen sit bi nga xam ne mooy 94 Walfu Sénégal résumé yi nag lu xew ci bis bi li xew ci bis bi nag saa su nekk rek ñu leen koy indil ci waxtu wi nii voilà kon nag tey euh, résumé yi euh, dinañ ñëw ci Ligue des Champions bi euh, di sport Ligue des bi nga xam démarré na tey dinañ leen wan match yi am tey xam naa match yi sax mi yenn yi ñu ngi waaj jeex yenn yi jeex na voilà dinañ ñëw tamit ci euh, mbëkk mu bees mi rek voilà euh, Amérique saa su nekk rek bis bu yàlla sàkk rek euh, danañ ci jukki indil ko ñi nga xam ne ni bëgg nañ cee am xam-xam voilà dinañ ñëw tamit ci voilà Baye Fall yi macha allah wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey liggéey bu am solo fële ca dëkk bu sell ba di Touba kenn ku nekk nag sa dëkk nga am parce que dëkk boo ci dem rek ñu ngay protéger la nga xam ne ni. mooy seenub dëkk wala kan nag dinañ ci ñëw ñu liggéey liggéey bu am solo voilà lii mooy